أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أهيشها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لساني وقلبي ساكريك معا عند الممات مع الإيمان يالله سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد براي وكن مهسا لنا من شر سعطل محشر فمن وذر عين يالله وذر سهر وذر خلق انتهم ومهجنهم والسوات السمي الله وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يمي للشمال يا رجاء يكوني baabal hidaayati mixlaaxal xawaayati mixtaaxa diraayati yaasal xalqinil wasani lanabluwanakum li saabirina xasiba naasi li kaasibiina bokk jullit yi bokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaara te di leen ndokkeel fas delsiwaat ak yéen ci seen waxtaanu alxuraan koy amalal di seen mbokk seen xarit sëriñ Mbàkke Lo Xasaayit tey nag mbokk yi ñu fas yéene dellusiwaat ak yéen ci sunu waxtaanu tey doon waxtaan wu ama am solo doon waxtaan woo xam ne it waxtaane ci alquranul karim la niñ ko waxee woon rek doon loo xam ne ak laayante biir lay doon ba ki nga xam ne it doon na déglu téere bi mu gën cee sawar ci di gën a góorgóorlu ci diggante ak boroom naka noonu nag lañ ci ànd ak sunu technicien di Serigne Cheikh Bey mbokk yi tey ñu fas yéene ñëw waxtaan ak yéen saar wu am am solo. saar woo xam ne yàlla sunu boroom dafa boole lu bari loo xam ne moom moo ko bind mu giñ ci ñoom te yàlla nag lépp lu muy jël ab delluwaay loola noonu boo ko xoolee rek da nga xam ne loola lees mat a bàyyi xel la waaye loola ay kéemaan yu baree bari suñ borom dajale na ko ci biir lu mel na jant bi lu mel na weer wi lu mel na bëccëg gi lu mel na guddi gi lu mel na asamaan si lu mel na suuf si ak lu mel na sax ba ci dund nit ki am solo goo xam ne am na ko solo goo xam ne yépp yàlla suñu borom daf ciy ñaan waaye saar wii nag yàlla sunu borom di ci nettali alayhi salaatu wassalaam nettali ga nga xamee ne mooy la jiitu woon doon ay xew-xew yu amoon te xew-xew yooyu nga xam ne dafa xewoon jàlloon yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di ko fàttaliwaat alayhi salaatu wassalaam ci mboolem yenentam yi nga xam ne dañ ko fee jiitu woon ak ñi nga xam ne sax duñ woon ay yenent waaye ay nit ñu baax lañ woon nekkoon ci kaw suuf doon fi dund di ci xool ku mel ne xudar ak di fàttaliwaat yonente yàlla saalix yónnee goo xam ne suñu boroom yónnee woon na ko ko ak nit ñi nga xam ne nit ñu bew lañ mooy muy nitu sàmmood ya ñooñu ñëpp nga xam ne ñoom dañoo bewoon bewte gu bari gu jéggi dayoo nekkoon ci kaw suuf doon yàq waaye nag yàlla defal leen ñu doonoon nit ñu am kàttan doon nit ñoo xam ne nit ñu gudd lañ woon nit ñu rëy lañu woon ñu ngande waaye nag yàlla dëkkaloon leen mu doonoon ñi nga xam ne tey mooy dëkk yi ñëw dëkk bi ñuy wax muy yaman ñu dëkke woon fa doon nit ñoo xam ne dëkk gi dëkke woon ci xur ci ci xeer yi ak montagne yooyu noonu taxoon na suñu borom defal leen ñu doon nit ñu am kattan ñoo xam ne lu ñu bëgg a jëf ci montagne yooyu danañ ko mën a def nga xam ne montagne yi lan daan yett daan ci def seeni i néeg ak seen lépp daan ko dëkke ngir lan kattan koo xam ne yàlla defal na leen ko subhanahu wa taala ngir sunu borom subhanahu wa taala fépp foo gis ci xaalam bi ña fa war a dëkk préparé na leen ci nañ war fa nañ fa war a nekkee nañ war a yàlla suñu borom nag defaloon leen nag ñu doonoon nit ñu xam ne ñu bàyyi woon xel yàlla suñu borom lañ doonoon ñu nekk ñoo xam ne dañoo amoon kàttan ñu dem ba mu gi nag di may yàlla ak di tàmbali di tooñ tooñ yoo xam ne jaaduwut seen diggante ak seen borom suñu borom di leen teg ay bekkoor ndànk-ndànk mu daal leen gaar ba kenn ko na xam ne ne xudar soññ na leen xupp na leen waar na leen jëme ci borom bi yàlla suñu borom yabal fay yonent waaye yabal fa nag yonent yàlla saalix yonent yàlla saalix moom it yàlla suñu borom joxoon ko ak giléem naagaam googu nga xam ne moo doonoon giléem gën ak yàlla dogal nag ñu bëggoon ndox bañ ko ko diisee mu def ak la ca xew lépp histoire bu gudd gudd la yàlla suñu borom dogalit nag ba leen yonent yàlla saa euh, saalix defalee li ngeen xam ne moom lañ doon bëgg mu defal leen ñu man di am ndox waaye nag ndox ma daa am nuñ ko daan jëfandikoo ndox moom nag daawul ne fu ñu toll rek dañ daan root waaye dafa am bis yoo xam ne yàlla suñu borom da koo jagleel ñoom la teen ba di génne ñoom nit ñi ci lañu root bis boobu noonu ay bis yooyu noonu moom moom la ñu roote ñoom ngir man caa naan man caa togge man caa sango man caa waajale mbooleem seen seen semaine seen waxtu woowu noonu seen seen bis yu ayu bisu dees yooyu noonu ngir nag bokkut ak bis yi nga xam ne nag giléem gi moom moom moo war di naan giléem gi it bu waree naan yàlla su borom def na ne giléem gi la muy naan mooy mbooleem la nekkoon mboroon ko ñoom it ci giléem da koy naan moom it moom loolu la war di naane te giléem googu nag bu ko yàlla dogalee it ñu dem ba mu gi nag ñu tàmbali caa def ay pexe ne daal comme que lii giléem la am juróom-ñeent ñoo taxaw ñoo xam ne ñoo jëloon seeni pexe te dar xupp na leen waat na leen ngir ñu bañ a def loola waaye teewutu ñoom ñu fetteerlu rek dox jëm ca loola waaye jàpp giléemu yonente yàlla saalix ga rey ko waaye ginnaaw ba ñu jàppee giléem ga rey ko ngir naan gi muy naan ndax dañoo maroon dem ba mujj gi ñu rey giléem ga giléem boo xoolee li tax suñu borom di wax ci alxuraan naan ndax du leen yéem moom giléem ni ko suñu boroom bindee ndax du leen yéem ndax giléem yàlla may na ko li ne ci biiram dafa bëri doon ay njariñ waaye giléem fi mu mën a dox lépp dafa bari waaye giléem it yàlla suñu borom dogal nag giléem gi nag moom ci xeer woow ci xeer yooyu fa la ko suñu boroom dogal it mu nekkoon fa waaye moom giléem googu nag ci histoire bu gudd xam naa bu ma ko toppee sax mën naa jël waxtaan wi lépp sun borom wane na ci kemaanam keemaan yu yéeme yéeme waaye ba juróom-ñeent ñu dogoon nag ne dañuy rey giléem ga te ñu tere leen ko tere gu të ñu tere gu dëgër ñoom ñu të na dañ def loola waaye ginnaaw ba nga xamee ne rey nañ giléem ga nag yàlla alag leen daa di def suuf si daa di yëngatu yëngatu gu a ah, gu jéggi dayo ba mboolem li wax raat maare suuf si daal di yëngatu mooy maanaam yëngatu yëngatu gu yéeme yéeme de yëngatu yëngatu gu yéeme yéeme yoo xam ne bi mu yëngatoo nag mboolem ña fa nekkoon ñëpp dañoo mujjee faatu waaye ñeneen ña des nag kattan googu ñu amoon ba mbéwtu dugg leen nag yonent yàlla saalix ñaan leen yàlla moo tax tey gis ngeen nit yi yaman yi doon nañ ñu njoole lañ woon njoole lool daan ëpp 2 mètres waaye seenu ngandaay foo ko takk weesu na ko foo takk seenu ngandaay rek weesu na ko ndax kattan gu leen yàlla defoon waaye léegi gis ngeen leen nit ñu ndaw ndaw la ñu doon buñ lu ñu njoole njoole it duñ am yaram ndax loolu yonent yàlla saalix moo leen ko ñaanoon moo leen ñaanoon yàlla ca ban rayee gileemam ga juróom-ñeent ñooñu nag mooy comme lu mel ne li xewoon fii Sénégal rek bañ ñi dugal loi assemblée boobu noonu te juróom-ñeent nit ñi bañoon ci assemblée bii jàll nii mooy ñii fi nekk nii ñi ñu wuutu assemblée boobu noonu xam ne bañ dugalee luwaa góor jigéen ñooñu juróom-ñeent ñoo taxawaat juróom-ñeent nit ñoo taxaw bañ ko loolu du jàll loolu nag mu doon lu doy doy waar waaye ñoom it moo taxit yàlla yàlla yàlla mbugal na leen ba ba mu dikkaatee rek lañ leen wàcc ñoom ñëpp dañu leen wàcc ñoom ñëpp dañ leen a gaje ñu wàcc far sax lu musta am Sénégal yàlla def nag mu doon ensemble boo xam ne dañoo témboo muy kujje gi ak kii bi ñëpp ñu témboo nga xam ne kon loolu def ak sunu boroom saa su rek day ñëw di di leeral lu bari moom saar wow ñu bëgg a waxtaane nag muy sooratu Sams mu ngi wàcc màkkatal mukarram moom saar woowu nag mi ngi wàcc makkatal mu karam waaye doon fukki aaya ak juróom kon nga gisaat ne quinze aaya la quinze yooyu nag dafa doon lu yéeme muy fukk ak juróom quinze dafa bëri lu muy symboliser rawatina it mun la indilee jant bi indi la weer wi indi la suuf si loolu da ngay daal xam ne ba ci aayaat yi sax dafa bokk ci kéemaani yàlla suñ borom yi subhaanahu wa taala kon loolu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ci fii ñu toll waaye loolu nga xam ne moom taxaw na muy saar woo xam ne muy sóoratu sams saar woowu nag bi muy wàcc mi ngi wàcc màkkatal mu karam ginnaaw bu sóoratu xadri wàcce rek saar woowu noonu moom moo ci topp muy wasamsi aus billahi min aseytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasamsi wa duhaaha isaa tallaaha wan isaa jallaaha wa isaa yaxsaaha wa samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaha kasabat samud bi taqwaha izin ba'asa asqaha fa qaala lahum rasulullahi naaqata llahi wa suqiyaha nga gis muy histoire bi ñu leen doon wax léegi nii fa kazzabuuhu fa xaqaruha fa damdama alayhim rabbuhum bi zanbihim fa sawaaha falaa yaqaafu uqbaaha mbokk yi alxuraanul karim mooy téere bu yéeme téere boo xam ne ay kéemaanam foo ko takk weesu na ko mu ne nag ci turu borom bu tëdd boobu daal ci lay tàmbalee samay wax ak samay jëf ci lañuy tàmbalee suñuy wax ak suñuy jëf moom bi nga xam ne daal lépp lu nit di def te bëgg ca barke faaw nga tàmbalee ko ci moom borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy aji xéewal ji di aji yërmande ji te borom xéewal yu dijj yi di borom yërmande ju dijj ji jagle ko mboole mbooleem mbindaafoonam yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci kaw suuf di dund waaye borom xéewal yu sew yooyu nga xam ne da koo xaroon ak ñi nga xam ne dañoo saxawoon ci di ko jaamu rek ci àdduna xéewal yooyu tàmbalee ca bàmmeel ya nag waaye du dog ba ca bispenc ba ba ñuy naan ca dégg ba ba ñuy tàbbi àjjana di sax dàkk ci turu borom boobu daal ci la ñuy tàmbalee sunuy wax ak sunuy jëf mu ne giñ naa ci jant bi akuk leeram moom sunu borom mu ne maa ngi giñ ci jant bi akuk leeram waaye maa ngi giñ ci weer wi akuk leeram su guddee maanaam weer wi bu guddee ni muy leere ak taar bi yàlla jox weer wi yàlla sunu borom ne maa ngi giñ ci moom ci guddi gi bu tàbbee waaye maa ngi giñ ci li nga xam ne mooy bëccëg gi moom yàlla sunu borom ba tey mu ne maa ngi giñ ci bëccëg bi ci muri goo xam ne yàlla sunu borom muri na ko moom bëccëg bi mu mel nii mu mel leer nañ ñi waaye yàlla sunu borom ne maa ngi giñ ci guddi gi su ko defaatee mu muur ko mu doon lu lëndëm ak ci asamaan seeg ki ko tabax moom yàlla sunu borom subhanahu wa taala ak ci asamaan si waaye it ak ci suuf si suuf si nga xam ne yàlla sunu borom moo ko bind tàllal ko mu tàllal mu tàll ñay yàlla sunu borom it di fàttali ñoom doomi adama yooyu noonu ci seen tooñ yooyu nga xam ne nekk woon nañ ko ñu bañ a bew mu leen di fàttali ak ci bakkan yi nga xam ne yàlla sunu borom defal na leen ku mu doon ak ruu ñu cay nooyi nooyi gu dal waaye yàlla wërsëgal leen muy ruu goo xam ne yàlla daf ko yamale loolu nga xam ne yàlla defal nañ leen ko ñu mën a ràññee lu baax ak lu bañ mën a xam lu baax ak lu bon moom yàlla mu leen defal bañ mën a ràññee lu baax ak lu bon képp ku sellal jëm ci yàlla sunu boroom day kooku mu ne mooy kii texe waaye nag mu ne képp koo xam ne nag dafa sàggane daal di wan ginnaaw yàlla sunu borom mu ne kooku day mooy ka perte moo tax mu ne bu dee niti sàmmudee nag seen mbewte ga moo taxoon ñoom ñu mujjoon weddi ñu mujjoon weddi seen boroom muy niti sàmmoot ñoom dañoo bewoon yàlla defal mboolee mi xéewal rek yoo xam ne amoon nañ ko waaye dañoo mujj dem ba bew mujjee weddi yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu ne nag ba tax na ngeen weddi nag la nga xam ne moom la leen yonent yàlla saalix indiloon doon leen ko wax muy ngeen weddi nag yu toxloo ko bokk na ci mbugal yi nag yàlla dafa defoon ne ñu tax ba ba leen mbugal may dikka sax mënuñu ko woon a bàyyi xel ndax du dañoo mujj tax ñoom ñëpp te it yonent yàlla bi bana leen ñoom ñëpp bàyyi leen ci mbugal moom nga xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala teg na leen ko ñoom ñëpp te loola mu ne leen bàyyi leen gileemug yàlla gi mu naan moom yonent yàlla saali xamal leen ne leen bàyyi leen gileemug yàlla gi mu naan waaye ñoom ñu bañ ngir seenu mbewte rek tere gam leen tere ngir ñu bañ a rey giléem ga waaye nu weddi daal di rey rey giléem ga sunu boroom nag maasale leen ñoom ñëpp mboolem nit ñëpp sunu boroom maasale leen ci biir suuf nit ñëpp alku ñoom ñëpp dañoo mujj alko te ñoom mujj ragalatuñ dara ca lay mujj ci ñoom ragalatuñ dara bàyyeetuñ xel seen boroom ngir ak mbewte kon nga gis ne nit yàlla dina ko defal ay xéewal xéewal li mu war cee sant yàlla waaye xéewal yooyu sax mën na dem ba tàbbal ko ci mu mujj jëf bàkkaar waaye mujj dem ba dootul bàyyi xel boroomam waaye day mujj dem ba la nga xam ne moo taxoon yàlla di ko wërsëgal sax mu jàpp ne loola moo ko xañu wërsëg te lu mel noonu rek moo leen dal ñoom ñëpp ndax dañoo mujj dem ba féttéerlu mbooleem loo xam ne sunu borom defalal na leen ko màndal gam leen daan màndal beneen bi see ca des mu bàyyi gileem ga mu war a naan waaye dañoo mujj fetteerlu jàpp gileem ga bañ demee ba bëgg a rey gileem ga yonent yàlla saalix tere na leen ko xupp na leen waar na leen waaye ñoom ñu weddi rek fetteerlu daal di rey bu gileem sunu borom gi moo tax yàlla suñu borom it tëkku na leen it moom yonent yàlla saalix nee na bu ngeen ko rey du lu ne mën na leen cee fekk waaye taxul ñu faale ko taxul ñu bàyyi xel lam leen di wax waaye ba nga xamee ne nag rey nañ ko ngir weddi yàlla ak fetteerlu yàlla sunu borom nag def dañoo mujjoon tëx ba mbugal may ñëw mënuñu koo dégg yàlla ñëw maasale leen ci suuf si def la ñu wax raan maare rëng-rëngee leen suuf sa yëngatu mu mëdd leen ñoom ñëpp maasale leen far leen ci kaw suuf ñeneen ña des ñëpp yonent yàlla saalih ñaan yàlla suñu borom mu bañ leen a defalati benn kii bu mag bi comme jëmm yu rëy yi ñu yor ba tax ñuy bew ba tax xam naa ne bu ko toppee sax dana gën a gudd waaye lu ci jub ñu sant ko yàlla suñu borom lu ci dëng ngeen jéggal nu ko te xam ne matatik doomi aadama la yi baax wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. rahmatulahi taala wa barakaatu.